bu ko defee nee na Cheikh Moustapha ma nga egg si njaareem ginnaaw ginnaaw bu ñu añee te tisbaar jot te takkusaan jotagut nee na waxtu woon Cheikh Moustapha egg si njaareem nee na bi ci këru boppam ki nga xam ne moom la amoon ci njaareem daaw ni fa la jógee def xalifa kër googu la dem fa la dem daal di jabale demee itam nee na mbooloo mi bari fa lool fekk ko léegi bi sëñ Mate Lamine yéegee si sëñ ñëw na ci dëkk bi dafa dem gis ko daal koy xamal ne nag sëriñ bi daal dem ba tey yënguwut fenn waaw dem naa fa seex léegi laaj ko fan la nekk mu ne ma fii la duggoon hmm. nee di ñëw daa bàyyi buñ ba noppi buñ julli tiis ba noppi ba timis gi mu rocc ko ànd ak sëñ Mate Lamine Diop Dagana ak sëñ Maxtaar Silla ak suñ Cheikh Khary Dieng ak suñ Abdoulaye Diop Léona waaw nee na ñii la àndal juróom ñi ñoom ñoom juróom ñii daal ñoo ànd ñëw nee na bi ñu ñëw fekk ko fi mu nekk moom suñu sa fàtta ko jóg nee na Cheikh Moustapha ne ko sëriñ bi fu mu nekk nee na ma nee na ma moom ba ci foofu yi mu duggoon ci alternative ji suba ne ko fii la dugg mm, nee bunt ba sax ndakete tëji ko neen defoon nañ ne tëji na mi naan damaa defoon dafa tëji sax ndekoon mu yóbbu fa ñam waaye ndakete tëju ko ne ba di ko bëgg a daaj ne niñ gine ndakar tëju ko da laf rek da koo laf ba mu dëgër bunt bi nga xam ne ci la génnee itam buñ ko buñ ko xalee tànk tànk ya da ngay gis tànk yi ni muy ñàqatee bàq bi de bàq dox yaa nga fa daal hmm. nee na biñ duggee Cheikh Moustapha dafa séddoo cërub kilifa daal di toog fa mu njëkk jot rek fa la moom ak suñ Cheikh Khary Dieng ak suñ Abdoulaye Diop daal di yebal suñ Makhtar Sylla ak Cheikh Modou Lewin Diop Dagana ngir ñu seetal ko neen ñu ñaar suñ Cheikh Makhtar Sylla moo yoroon patafort bi lamp patafort ak suñ met la riwaay nag day xaw a wuute léeg-léeg te mën naa am bu ci ne na waaye dama moo tax ma tànn suñu Seex Fanta ko rek xam ne moom ni ma ko waxoon fii xabil xadas waaw léeg-léeg nga dégg ñu nettali ko neneen waaye moom moom lii lii may wax nii la ko nettali nee na ñoom ñaar bi ñu àndee suñu maxtaar si la moo ko njëkk a seet gis ko néeg ñoom néeg bi njëkk a rek sax néeg bi njëkk a jëm bañ demee fa lañ ko fa lañ ko fekk addi yàllaahu taala waaj ba jekk fekk ko mu tëdd ci róom bi nee na sëñ si la moo ko njëkk seet gis ko daal di jox sëñ mat leen passeport bi moom itam mu seet ko gis ko nee na ñu dikk fekk Cheikh Mahamadou Moustapha radiyallahu taala anhu fa mu toog ñu wax ko ko ca waxin wu teggin ma moom itam nee na mu jukk dem seetal ko ba gis ko daal di jël loxoom teg ko ci jëmm ci sama Moustapha teg na loxoom teg na loxoom ci jëmmi sëñ bi waxanteeg moom foofu sax nuyu na ko ci ay baat daal di daal nuyu na ko ko ci ay baat ñaar yoon ba ñett wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ak sëriñ Basiru ah déedéet inna lillahi wa inna ilayhi rajiun boobu sëriñ Basiru ñëwagul sëriñ Moustapha bi mu ko bi mu tuddee yàlla ci la mu war a tudd ba noppi daal di génnaat taxaw ci buntu baraag bi moom sëriñ Moustapha Cheikh Xari Dieng sëriñ Abdoulaye Diop Léona sëriñ Mouhamed Lamine Diop Dagana ñoom juróom ñooñu hmm, nee taxaw nañ fa. diir bu yàgg boo xam ne kenn waxut Sëriñ Moussa génnee baraag bi neen taxaw nañ ne tekk diir bu yàgg boo xam ne kenn waxut eh, bu yàgg Sëriñ Moussa daan ne daan ne Cheikh Khary Dieng dama walum Basiru si si Cheikh nijaay si Basiru Cheikh Khary Dieng dama walum Basiru Cheikh Khary Dieng dama woy Basiru dama woy Sëriñ Basiru radiyallahu te anhu fekk si si fekk si Mahamadan Abdourahman Tàndax yi Mahamadan Tàndax yi fekk yàlla ate maa nga fa Sëriñ Basiru suñu basiir sax neen daana génn waaye yàlla ate maa nga fa li suñu seqari jëng wooyee suñu basiir ba mu ñëw suñu basiir da da ko wax da ko da ko waxaat mu dem wooyee Mahmadou mooy naaru gànnaar boobu nga xam ne moo daan noo dal ca Jolof Mahamad Abdourahman Tàndax yi mu dem wooy waay ku mu ñëw bi mu ñëwee Cheikh Moustapha daal di yebal sëñ Maxtaar Silla ca sëñ Balla Coor sëñ Massar Seye ci sëñ Balla Coor sëñ Balla Coor bi muy ñëw commandant la àndal commandant de cercle monsieur Pall la àndal neen commandant moo doon dawalal boppam ñoom ñaar rek ànd bi ñëwee itam neen commandant sëñ Ba boole ko sëñ Massar Seye la mu ànd ba man ko na gis na jëmmi sëñ bi teg na ci bëtam hmm, ndax neen bu ci tëgul bëtam du mën a wax ay kilifaam dara suñ sa fàttako moom riwaay boobu la wax am na sax beneen riwaay buy nettali riwaay bi suñ Maxtaar Silla buy wane ne mujj ko gis boobu sax mën naa mu wér ndax riwaay yi am na ci yoo xam ne des na mën a def muqarana bi waaye damay damay bëgg a guddal ma tax damay nekk ni riwaay suñ sax fàttaako rek daal di kon daal li noonu mu ko waxee gis na ko nee na bi mu dikkee moom commande nag Cheikh Moustapha daal ne ko dama ko bëgg a yóbbu këram gu ñuy wax Tuubaa nee na commande nag bi ne ko mënees na ko hmm. commandant bi ne ko mënees na ko te nee na dellu négut ba delluwaat ca dëkk ba ba jokkoog ay kilifaam nee li tax ma sañ loolu nag mooy gis fi kenn kuy yëngu mbaa koy daanu mbaa leen lépp ci ak daj dal ko mat sëkk dafa fekk hmm, foofu itam noonu may waxe wuute bi rek ci nett lii nee nañ commandant doon na gaaral Cheikh Moustapha néeg ba suba ne ko nangu nañ yóbbu ko Tuubaa waaye nag ba ma ne néeg ba suba daal xam naa ngir yëgal ko ay kilifaam yooyu Cheikh Moustapha nag a nekk daal Cheikh dafa gànt loolu xam ne kon suba du mën a nekk ci guddi gi rek incha allah man na nga ànd ci ak loolu tamit dafay waaye bi kon bi commande nangoo loolu commande ak dafa daal di dem moom commande ak bi mu demee itam dafa ñëwaat indiwaat ay garde waaye loolu dinañ ci ñëw bi commande ak demee sëñ Tuba Cheikh Moustapha daan ne suñ bàll ci woro bàll sa oto ba dañ ko war a indi hmm, ab dalaay la marque dalaay te bi mu waxee loolu suñu defa taku nee na suñu bàlla coon daan may wax safoor bi ne ma duur siis la tudd daal ma koy tegtal ne ko nee na ba ma demee wax safoor bi woo ko nga ko ne Touba lañ jëm waaye nag leerlu ko ci dara nag ci li xew ak dara waaw kon safoor bi daal di tàmbalee sol essence nee na booba essence butéel bi da koy bënn bënn bu ndaw tiimale ko ci du day yàgg daal digg diir bi muy sol essence nee na foofu suñu borom jox ma am xel